gaa yi nan sant Seex Saalixoo moom mi tax tey nu am xéewaloo gaa nan sant Seex Saalixoo moom mi tax tey nu am xéewaloo moo ñu te xëy di ay yéefaroo moonu tee xëy di ay yeefaroo bisimillahi rahmaani rahim barke sëriñ saaliw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu boo leen déggee xasida yooyu ci Touba Argentine ngeen xam ni maanaam ñoo ngi waajal cant sëriñ saaliw nga xam ni se nit nii chaque année ñi ngi koy def te ñu jëm ci cinquième édition bi euh, xam nañ ni nag mbokk jullit yëpp wax dëgg yàlla kenn ku nekk fat nga ko waaye dañuy gën a yëgle rek di fàttali bis bi nga xamal xamante nii mboolem ku nekk biir Argentine rek yaa ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax a baax yaa ngi koy waajal ci kàttan yaa ngi koy waajal ci xel xëy na mbooloo mi mooy ñi fi daje nga xamante ni nii ñooy ay dongay sëriñ Saliou ak ay soppeem fii ci Touba Argentine di taxawul bés bi waaye xam na ni mboolem ku nekk Argentine rek yaa ngi bis bi mi ngi sa xel te yaa ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax a baax kon xam naa dañuy gàttal foofu kàddu yi rek bu ko defee daal di jox sëriñ saaliw suñu jëwrin moom it moom mu eggali kàddu yi. Ah, di fàttali suñu bopp rek den fàttali muy li ñu dëgg man muy cant gi nga xam moom li at mu jot. Ah, di ko wax nag ci ndigalu sëñ ba mi nga xam moo jiite mboolem eh, mboolem. Ah, jëwriñ ne ci dëkk bi muy Argentine euh, di waxit ci ndigalu suñu jëwriñ si Ahmadou Bamba euh, muy li nga xam moom lañ def at mu jot muy daayira muy euh, cant suñ Saliou gi comme ñu koy baaxoo defee rek suñ ko toll rek xanaa di fàttali rek waaye xam nañ dëkk bi yëpp bàyyee nañ ko xel te it dëkk bi yëpp lañ koy àndal di ko jëfe kon nag ñu ngi koy fàttali mboolem daayira bu fi ne ci dëkk bi di ko fàttali waa fédération bi di ko fàttali it ñi nga xam ñoo ne ci xidmatul xaddim bi Ah, di ñaan nag suñu borom mi nga xamante ne nii ah, mooy yeggale nit ci bés yàlla ñu yeggale ci bés ba ak jàmm ah, ba lépp luñ ci am yéene rek ñu def ci lu kaw suñu jot ci barki borom Touba waaw di fàttali bu baax nag di jéglu di fàttali soxna yi nga xamante ñoom lañ bokk liggéey bi saa su nekk te ñu ci taxaw taxawaay bu am solo ñu ngi leen koy fàttali ci eh, tàmbale ci njiital soxna Safi Thiam ak mboolem soxna bu ni ci réew rek ñu ngi la koy fàttali bu baax a baax a baax ah, di ko fàttali ñëpp nag di ñaan suñu borom ah, mu yóbbuñ ci bés baax jàmm ci bàkki Serigne Saliou ñu ngi leen di tuubal bu baax a baax di jël ziar bi rek di ko teg ci loxo yi sunu Cheikh Ahmad Bamba Niang mi nga xamante ni mooy jëwriñu waa kër sëñ Saliou yi mu jàllaleel ñu ko ci mbooloo mi yëpp bu ngeen gisee jotaay bi comme ni ko sunu mbokku taalibe yi waxee. muy cant gi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal fii saa su ne muy cant Serigne Saliou gi ñu toll ci juróomeelu cant ci ren gi incha allahu rabbi mu mel ni saa ne cant gi ñu ngi koy def ci bisu it bi nga xamante ni muy bisu korite ren nag xëy na mu am ay jafe yoo xamante ni am na ci lu ci jëm ci wàllu saal fi nga xamante ni bërëb buñ koy defee ba tax xëy na duñ ko def ci bisu it bi cant gi nag mu ngi tollook altine incha allahu rabbi le 18 juin mu doon altine ba la ñu jëm incha allahu rabbi fa bërëb ba nga xamante ni fa lañ koy defee mu doon Rodriguez Peña 361 361 muy bërëb bi nga xamante ni fa la sun mbokk Baay Faal yi doon defee ñaar fukki fan yi koor gi doon bisu maam Cheikh Ibrahima Fall gi kon ñu ngi koy yëgal mbooloo mi yëpp bu ngeen gisee jafe-jafe saal yooyu nag li ko waral mooy xëy na suñu nekkin ci dëkk bi mu mel ni ñun taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi saa su ne di fi def ay màggal ak i cant ak i bis yoo xamante ni bisu nit ñu baax ñi lan mu mel ni xëy na suñu nekkin ak euh, ñooñu nga xamante ni ñooy borom saal yi moom moo waral suñu jafe-jafe ak saal bi kon nag ñu ngi ciy soñ suñu bopp di ci soñ bépp boolem jullit boo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi rek ñu gën a defaraat nekkin yi ci dëkk bi ba xëy na dootuñu am yenn jafe-jafe yi xëy na fii mooy sunu dernière opportunité muy salle bi nga xamante ni fa lañ jëm te ka nga xamante ni moo yor salle ba xamal nañu ci boppam ni xam na ni kenn luyeetuñu salle ndax xëy na suñuy nekkin xëy na nag day soog di tàmbale ak ñun moom moo tax sax mu jox ñu salle bi kon nag ñu ngi woowaan mbooloom yëpp ci yar ak teggin ka nga xamante ni moom lañ ñu jàngal ci fa nga xamante ni fa lañ jóge muy Sénégal ndax Sénégal moom ku ko dégg xam ni ñi nga xamante ni ñooy mag ñu baax ñi muy Serigne Touba maam El Hadj Malick muy Serigne Saliou mi nga xamante ni ñun ci lan ci lan ci lan ci leen ci leen ci ginnaawam lan bootu moom yar ak teggin moom lañ daan jàngal ndongo yi kon buñ dikkee ba ci biir dëkk bi waruñoo changer comportement kon nag ñu ngi ciy woowaat suñu bopp di ci woo bépp boolem taalibee rek muy bis boobu mu tombeek altine xam naa ni incha allahu rabbi programme bi dana tàmbali 9h ci suba buñ xëyee incha allahu rabbi la nga xamante ni nag mooy cant gi mooy jàng alxuraan jàng xasida ak bernde incha allahu rabbi noonu la programme bi tëddee fu 10 heures ci guddi jotee bu soowee borom bi danañ danañ indi xéwal yi yeewi mbooloo bu ko defee la nga xamante ni mooy waxtu wa nga xamante ni moom lañ wax ak borom saal bi muy min wi incha allahu rabbi ñu delloo ko ay caabeem kon nag ñu ngi woo bépp boolem julit di ci woo bépp boolem taalibe di ci woo bépp daayira boo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi rek muy daayira murid woo ci bis boobu incha allahu rabbi ak ki nga xamante ni mooy sëñ Abdoulaat mu sëñ sëñ Moustapha Saliou mi nga xamante ni moom moo ñëw ci bis bi incha allahu rabbi kon ñu ngi ciy woo bépp boolem taalibe di ci woo bépp boolem julit di xam naa dañuy wàcce foofu suñuy kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. boo déggee kàddu yooyu daal ngeen xam ni kenn ku nekk rek mooy sab soññee ci bis bi ñu bokk ko waajal ñun ñëpp rek di ñaan suñu boroom moom bi nga xam seen nii mooy aji kàttan mu kàttanal ñu ba ñu egg ci ci jàmm ak salaam kon yàlla nañu sëriñ bi gën a taxaw te it gën ñoo may ay kàttan ak xéewal yoo xam si dinañ ko mën a saa su nekk rek di sant di ñaan maanaam tamit jafe dëkk beeg yëpp rek suñu boroom moom mi nga xam seen nii mooy dimbaleb jaam mooy euh, dëgër dëgërul ak jaam suñu boroom boole ñoo dimbali boole ñoo dëgëral ba nga xamante ne nii jafe-jafe yëpp rek dinañu wan ginnaaw ñu ngi koy ñaan si kattanu Serigne Saliou asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu